tond ak établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère bi leen indil gamme vite fait ñoo leen ni may seen émission xalaas vendredi 17 février 9 h ci rajo Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf kontaan nañu bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu wérit ci ni ngeen di àndee ak rajo Futur Média waxtu xalaas jot ci RFM ma ci ànd ak passe partout maa ngi leen nuyu bu baax passe. maa ngi lay nuyu Ndiaye di la ziar di nuyu auditeurs yi internet di ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm. jaajëf jaajëf Aliou Ba mi nekk ci machine bi jaajëf sa mbay mi nekk ci digital bi tax ngeen mën di dund. xalaas en direct ci plateforme digitale yu Groupe Futur Média nuyu partenaire yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci xalaas di leen remercier bu baax a baax di euh, Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous euh, la santé de de vos yeux notre préoccupation première ñoom loolu la ñu wax di ci dox nag di ko waxee saa su nekk ak ay lunettes yu baax lunettes yu yomb lunettes yu garantie lunettes yu moderne accessible teg ci ci njëg yu yomb Optique Vision Plus Sénégal nekk fépp ci réew mi showroom bi ci VDN bi place bu nekk Kër Mbaye Fall Optique Vision Plus Sénégal mi ubbil nañ leen boutique Optic Plus Sénégal foofu fële ci diwaanu Louga ak saint fu ci nekk Optic Vision Plus Sénégal mi ngi ci seen wet établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère nekk ci wetu askan wi di leen gunge di leen jàppale ak ay produits yu baax ci gammam bii di vite fait di gamm boo xamante ne ji gamm complète la lu nit di soxla rek ngir dundam neex mi ngi ci gammu vite bi ñu établissement waa kër Serigne Touba Frère andil frotté dalay bàyyil xet gu neex ñu indi nag cuuraay bu neex a neex ngir kër yi cuuraay buy neexal kër yi bureau yi fu mu ci mën di doon muy cuuraay vite fait euh, pâte dentifrice vite fait crème épilatoire vite fait crème main wala crème pied vite fait lépp ci gamme bi établissement waa Kër Serigne Touba Fall et seen numéro téléphone di 77 555 11 11 77 555 11 11 partenaire beneen bu ñuy gërëm ci xalaas moo di bijouterie La Rotonde. des bijoux de qualité bijoux en or 18 21 ba 24 carats mm, ci ay design yu yu yu yu rafet euh, ba noppi nag garantie teg ci or pur or bu baax bi. bijouterie La ngeen ko mën a amee mi ngi rue Amadou Assane Ndoye immeuble La Rotonde ci rez de rez de chaussée bi seen numéro téléphone di 33 842 65 95 wala 70 639 di bijouterie La Rotonde di partenaire ci xalaas bijouterie La Rotonde nekk ba léegi ci mois de février bi ngir euh, ñi nga xamante ne ji kon dañu bëgg ay kado yu baax yu ñu jox ñi ñi dugg ñi nekk ci seen xol. Euh, bu ñu fa demee seen aaju dina faju ndax dinañ fa gis bijou yu baax ci ci ay njëg yu yu ñeneen ñoo xam ne dañuy gunge euh, seen ay abonnés seen ay partenaires gunge waa réew mi kon ci mois de février bi di mois Saint-Valentin moo di Kirène avec Orange mi indi Saint-Valentin 2.0 ak Saint-Valentin 2.0 ay euh, lu yu bëree baree bëri mën ngeen ko gagné lu ci mel ni ay duo de smartphone mais également ay duo de montre connecté ay duo AirPods ak yeneen yeneen i ngañaay moom la kon Kirène avec Orange indi nan nga ci bokkee da ngay euh, def kon da ngay souscrire ci euh, Mixel ci 690 wala bokk euh, ci 220 ñooñu ñooy partenaires yi ñuy àndal ci xalaas xalaas ci rajo Futur Média ñu leen di gërëm bu baax a baax fas yéene nag suubu ci xalaas bi ànd ci ak Passepartout passe ma dellu la waat ginnaaw bu ñu nuyoo partenaires yi. ziaral la Ndiaye ziar ñëpp ñu ñuy déglu ci waxtu wi di leen gërëm di leen sant. Mhm. Ndiaye dañuy dem fële. fan Tunisie. nga de ba Tunisie. man damay wër rek. su ma ñëwaatee dem Libi. <laughs> il faut nga dem Kédougou nag waa Kédougou ñoo ngi lay laaj. Kédougou incha allah Pape sama waa ji. dégg naa ya fa nekk dañu war koo lijjanti du jeex. sama waa ji Pape Ousseynou. Euh, waaw. ngi maa ngi déggante ak moom démb. Uh-huh. xam nga nag man damaa bëgg lekk Ndiaye balaa fu mu mënti jëm lekk laay préparé ba pare. dëgg la danaa ko damay paral ay bëy ak ay noonu. Uh-huh. waaw pour su ma ñëwee Kédougou incha allah ci fan yu néew. jeex na xalaas gi na ko dem. ñu dem Tunisie lu fa xew. après ñu dem Libye euh, dañu am suñu ay mbokk sénégalais. Mhm. ñett la yoo xam ñu ngi jógee Italie. waroon ñëw Sénégal jël euh, compagnie wu Tunisie bi nu mu tuddati. Tunis Air mhm. mais dañoo dañoo dañoo doon def transit Tunisie pour après jël beneen avion ñëw Sénégal. Mhm. lañ ñu doon ci xaalis dañ ko nangu ci aéroport Tunisie ba. somme bi nag ñoom wax nañ ko xëy kenn ku nekk dañuy tere. Mhm. am na dëkk yoo xam ñum seen ñu ngi lay may ba nga yore lu toll ci dix mille euros. Mhm. nga mën ko jàllale. Mhm. mais ñoom ñett soo boole li ñu yor. maanaam matul matul matul some bi ñu tere. parce que li ñu dajale ñoom ci ñoom nangu ko mooy dix mille trente euros. fi mu ne ña nga takk ci dëkk ba. seen xaalis récupéré nañ ko bind leen ay kayit neen dem leen. seen problème mooy bu ñu ñibbisee. fan lañ koy lijjantee. maanaam fu ñu mën dem ngir jotaat seen xaalis. waaw. fu ñu ko nangoo aéroport Tunisie. waaw ah bu ñeen ñoom am nañ dem ambassade Tunisie. dem nañ ci ambassade euh, ambassadeur ba nekk foofu bi teewal Sénégal foofu. Mhm. ñun leen dañ ko lijjanti. mais jox nañ leen kayit koo jël. maanaam dañoo wàññi ci xaalis seen xaalis ku nekk 1600 euros jox leen ko jël la léegi li ci des kañ lañ leen koy jox. Hmm, loolu lay wax ji nag. waaw ah, xam nga am na yenn somme yoo xamante ne ji mënoo ko mënoo ko mënoo ko jàllale aéroport. waaw non fekkee kenn ku nekk est-ce que dix mille euros la est-ce que est-ce que est-ce que yegg na foofu. non non dix mille euros waaw. Hmm. ah ci yenn dëkk yi boobu waaw xam nga nag réew mu nekk ak la fay dem. waaw xëy na bu ñu ko nangoo. ñoom ñu ko nangu nanguñ ko seen coobare bopp. ah te ñu déglu leen d'abord. déglu. nun nag jafe-jafe bi nu am ay sénégalais lañu nekk Italie léegi eh, bi yàlla dogalee ñu jóge Italie dagg bee air Tunisair waroon a jóge Rome ñëw Tunisie pour jël fi air bi pour ñëw Sénégal léegi noo ngi fa waroon a départ dimanche ñëw Tunisie léegi bañ waree départ Rome avion bi am tardement biñ dikkee ñoom pour jël avion bi aussi ñu dugg ci avion bi ñu war a def directement pour ñëw eh, Tunisie bu boobaa kon dañ fa fekk avion bi jëm si Sénégal ñu demaat beneen ci Italie sori bu ñu wax Venecia léegi bañ fa jógee door a ñëw bi ñu ñëwee fekk avion bi jëm Sénégal dem ñu ne ñu yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw ci avion bi jóge Italie du ngeen mën a dem parce que avion amul léegi dañ leen di yóbbu hôtel bu ko defee bu ngeen demee ci hôtel ba def fa alterné talaata ñu jël si leen fa lañ fanaan dimanche fanaan fa alterné talaata ñoom ñu jël si ñu bi ñu jël si waatee andi wàcciñ ci buntu aéroport bi ñu jël suñuy sac di amee ak sun suñuy bagage dugg ci biir biñ duggee ci biir jaar au lieu kon ba ñuy dem ñoom ñooñu ñoom ñooñu accompagner ba génn ñu mais bi ñu ñëw gisuñu kenn bis bi dafa ñoo wàcc ci buntu aéroport bi rek ñu dugg waaw bi biñ duggee nag ba jaar ci fi ñu war a euh, jaar yépp ba ñëw ba ci policiers yi ba dugg ci policiers yi joxe suñu euh, passeport ñoom ñu defal ñu tampon départ léegi ñu war a dem ci lañu fina euh, ci lañu douane yi daal di nañu ñëw leen ñu dikk ñu ne ñu est-ce que yor ngeen xaalis ñu ne yor nañ xaalis ñu da ngeen koy déclarer comme xaalis ñu leen si ñoo ngi xaalis nu génne sunu xaalis bañ gis ko ñu wan leen ko ñu ne andi ñu wàññi ko kenn ku ne ñu waññi sa xaalis ba xam ne mu toll ñu teq ca mille cinq mille six cent euros daldi la koy sànni ne la jëlal léegi li ci des nii amoo droit pour yóbbu ko ñun ñu jàpp ne xëy na déclaration bi kon lañ war a def pour ñoom ñu dañuy def déclaration bi wane ne danga fay jaar ak lu ëpp li nga fi war a jaare kon déclaration bi la ñuy def door laa delloowaat sa xaalis ñu daal di koy wàññi ba ñu def ko ci ay paquet daal di téye nañu bi xaalis du dem parce da ngeen jaare ak lu ngeen fi wërta jaare ñu nekk fa dem kaw dikk suuf ñu lànk léegi daal di ñuy bindal ay kayit yoo xam ne jox nu nu léegi bu dee ba ngeen a dem leen ci air bi ngeen dem seen yoon bu ngeen bëggut a voyagé ngeen ngeen resté ngeen resté fii léegi nu dem ba air bi di war a départ man ma jël foo yi yi nga xam ne moom la ñu bindaloon comme waa air bi ñoom xamuñu ndax ñun jël nañ suñu xaalis wala déet ñu wax leen ne leen léegi air bi yéen balay départ nañ leen wax ne suñu xaalis dañ koo jël ci xamuñu yan condition lañ ko jëlee foo yi ñuy dox bu wàccee Sénégal ak yi lañ ñu jox fan ngay dem pour di ko fa jooytu fooy dem ci Sénégal pour di ko fa jooytu man maag ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñuy ñetti nit ñu nongul ñu suñu xaalis ma ne leen nan toog nañ bañ a dugg ci avion bi ca toog léegi buñ dee jël suñuy responsabilité it ñu jël ko dem jëli hôtel fanaan fa bu ñu ak jàmm ñu dem ci ambassadeur bi ñu expliquer ko parce que comme moom moo fi ki nga xam ne moo fi nekkal Sénégal moo fi suñu président léegi nañ ko wax liñ ñu def avant ñuy génn réew mi ba xam ñoom lañ moo ci seen xalaat léegi dem nañ ci ambassadeur bi wax nañ leen ko liñ ci man lépp daañu ko ci def léegi nun noo ngi noo ngi nii Tunisie ba léegi mënagun fee jóge même waa air bi biñ waxee ne leen léegi bu ngeen dëggut dëggaatut béyee sax pour ñu ñibbi nun du yomb ci nun fokk dañuy daggaat ay béyee parce que euh, suñ béy yu njëkk yi nungootuñ koo accordé waaw waaw noonu la waaw dix mille trente euros yi nun ñett li ñu nangul lépp noonu la toll parce que kenn ne dañoo jël ci sa xaalis mille six cent euros jox la nga am droit yóbbu ko li ci des noo koy téye waaw léegi nag kenn ku ci ne nun ñett biñ bloqué liñ ñu li ñu jëlal lépp 2030 nga hmm. xam nga nag ku nekk bitim réew liggéey nag ba war a ñibbi sa réew moom. Hmm. ndog-ndog bii dal la tamit ah. mu nekk six million cinq cent soixante quatorze mille et quelque. dix mille trente euros yi waaw. Ah. six millions cinq euh, soixante quatorze euh, mille francs CFA quoi. Hmm. waaw ah, mais gëw ma nag ne maanaam dina ñàkk seen xaalis du ñàkk yoon bu ñu mën a jaar. Ndiaye. xam nga nag da nga andi boo xam ne paas pour ma wax ci parce que man. Hmm. est-ce que mos naa jéggi aéroport ak lu weesu. <laughs> Ndiaye te nga wax loo xam. ah. déet léegi nag may weddi à l'antenne. déedéet weddi ma la de. ah déet su ma waxee pare nga ne ma te nga wax loo xam kay. mooy par exemple da weddi à a wax ni maanaam da nga bëgg wax ni jéggi bu weesu lan. <laughs> ñu continuer. <laughs> nañ leen dimbali daal. fekkente ne ambassadeur boobu mi mi ngi dégg te mën ci dara. Uh-huh. nañ leen taxaw waaw parce que xëy na dëkk bu nekk ak loo am tamit waaye daal ah lu metti la de. kii mu ne enfant possédé. doom ji doom ji am lu ko possédé Ndiaye te doom ji 10 la am. possédé mooy. waaye Ndiaye lii nag problème la de. Hmm. Ndiaye ndaw si. en fait développement bi ci deuxième partie la ñëw mais première partie dafay expliquer lii daal xale bi. Hmm. doom ji daa am lu ko lu koy dugg. Hmm. par moment. mais bu ko duggee day wax ak waa kër gi di leen wax maanaam kii wax dootul nekk xale bi dootul nekk xale bu jigéen bi wax. mais li ko ah jigéen la. waaw mhm. mais li ko dugg mooy wax ak ñoom. Mhm. naan leen ci yaram bi laa def sama sama sama douche ñu baal ma fa def sama waañ fa laa dëkk comprendre nga. Mhm. yenn saa yi muy kii xale bi pour xale bi di xaru di yëg ay étage pour tëb xaru. ñoom dañuy dégg li kooku di wax. di wax nii ñuy dégg. mais ci xale bi la koy jaar waaw. yenn saa yi mu ne yaay ji yow kii jurloo ko maa ko jur léegi nag li indi problème boobu yëpp nag. Mhm. dafay ñëw ci deuxième partie bi. Mhm. mais da nga déglu première partie ba pare. ayca xale bi elle a dix ans mais day mel ne ku ñu possédé day jékki-jékki ñu possédé affaire bi possédé ko mais sonal na xale bi tarate actuellement sama doom macha allah yàlla di ko may a jàng mais mi ngi ko bëgg a di ko defloo yoo xam ne yu kéemaane la parfois day bëgg sax xaro ba ma nekkee en état en xale bi juddu ba ma nekkee en état dama nekkoon ay difficulté yu métti xanaa Dakar et tout mais xale bi day jékki-jékki mel ne ñu passé de li nekk ci moom day wax ak ñun sama sœur ak sama yaay la nekk actuellement mais day wax ak ñoom même man mii su may wax ak moom su ma fa demee parfois ko sang garab nii parce que nit ñi dañ parfois ma tase ak benn sëriñ mu ñaanal ma si ma jox ma ay garab ma sangu ko mais su ma ko ko sangee da ngay gis mu commencé day xuloo man di wax xale bi elle a dix ans macha allah elle est tellement intelligente daaw seen classe moo fa jël première mais ren moom première compo sixième la jël da ko perturbé daal waaw day nekk si moom si yaramam bi léegi nag rab bi nekk si moom danaan moom si yaram bi la def ay doucham ay këram xale bi day waxtu di wax di wax di xuloo ñun barki démb sama yaay sax la bëggoon xeexal affaire bi da ko souvent trop day jékki-jékki dugg ci moom mu nekk mu nekk beneen nit mu jékki-jékki xale bi ñëw xale bi su ñëwee da ngay sentir xale bu dal duus waxee nànk mais léegi su ñëwee rek voix boobu day changé mu nekk beneen genre nit bëgg naa ko ma si jàppale trop dara bu dara parce que sama doom sonn na te mi ngi bëgg a yàq àdduna rab bi ci boppam moo ma ko wax ba sànq si mujj may wax ak moom mu ma carrément ma ne ko yow fan duggee sama doom mu ne ma ba ba nga ko ëmmee di taxawaalu noonu la ma ko waxee mais da ko sonal da koy possédé ba pare da koy feebarloo pour mu ko bañ a continuer jàngam xam nga te loxo yi lay jàpp day jékki-jékki loxo yi di jam affaire bi métti man au début gëw ma ko woon mais sama rakk bi nekk ak moom ak sama yaay ñëw ma si gën a ba benn jour ma dem dem kër ga ba kay sang garab yi bi na commencé di xuloo man jour boobu da ko naroon sax xaruloo mu yéegal ko ci balcon néeg bi pour mu daanu maa ñëw xëcc ko beneen bi mu kii ko si kër gi si suuf juutal ko fa tamit parfois dañ koy bëgg sax di dóor muy def ay conneries te day fekk affaire bi la affaire bi moo koy def moom da koy wax danaan pourquoi man melu ma ni xale yi normal la koy wax nag tout le temps day daw génn kër gi dem juutu ci balcon yi pour daaneel ko instant boobu rab bi mooy nekk ci moom keroog da koo def man daa maa jékki-jékki mu daw rek génn kër gi ni ma ko ñëwee ma gis ku jigéen ma koy laaj maa gisoo xale bu romb ku jigéen ki ma déedéet gisuma ko man daa ma jékki-jékki rek boobu nag la sama doom duggaat ci yaramam bi ne ma rek sama tur si laa ko gis nii mu ñu ngi ko juutal pour daaneel ko dégg nga ci wax ji mu naan laaj narab bi fan nga mu duggee munu ko ba nga ëmbee di taxawaalu. Mm-hmm. loolu nag mooy revenir njaay ci essentiel wax ji parce que ndaw si dafa am ku ko ëmbal. Mm-hmm. bi mu ko ëmbalee bañ. Mm-hmm. ay woy juróom génnee ko. biñ ko génnee mu ñëw dakaar nekk ci benn kër mbokkam. kooku ne ko mënu maa jël risque téye la ci kër gi ba nga accouché. mu génnaat foofu di fanaan ci mbedd mi. ci moment boobu nag la ko duggee nag ba ya ko cay fekk fekk ko ci bu am na yeneen yu gën a doy waar yoo xam te ni mi ngi ci wax ji. ah ñu déglu ko déglu. en fait ba ma ëmbee it dama nekkoon ci mi de c'est-à-dire defuma lu bon de mais dama amul woon fu ma nekk sama famille nekkuñu woon a Dakar ba ma bëggee dellu sama kër famille sama papa bi bu mu fee ñëw fii Dakar sama ben tante moo ma hébergé woon mais par la suite mu ne moom du jël risque comme ni ma nekkee en état ma nekk ak moom ba nekk à terme après si laa nekk ak moom nekk ak moom mais après ma jóge fa si mi laa daan fanaan comprendre nga loolu moo indi xale bi lii dal sama neuvième mois ba may dugg si laa dem si la ma sama yaay yóbbu seen dëkk ñoom foofu laa amee doom après par la suite si laa ñëwaat Dakar commencé di bi su ko duggee la may wax loolu la ma naan da wax même xale bi su lucidé danaan ba pare si garaaw mooy rab dafa am tur njuuxaan la tudd danaan mi ngi si ya yaram bi si biir bi la def këram tey nee na si ginnaaw gi la def douche am comprendre ci baatam bi foofu la def waañam loolu lay expliqué léegi nag pour xale bi génn ci moom dañuy gis xale bi dañuy jékki-jékki ne ko njoxaat bàyyi sama doom wala sama raq bi jigéen bi ko loolu bàyyi sama bàyyi xale bi bàyyi ko ma ne ko indi ma sama doom léegi su ma ko waxee loolu dañuy gis day def ay manière yëkkati biir bi tëdd ci lal bi yëkkati biir bi bi xëcc baat bi après nga gis xale bi ñëwaat ci moom comprendre nga noonu la koy def situation yi précaire la ma fekkoon parce que sama papay doom moment boobu nanguwuloon grossesse bi ba xale bi amee deux ans c'est le corps reconnaître mais c'était trop tard situation yi ma doon dund sama grossesse loolu moo indi lii lépp xale bi affaire bi dugg ko ci sama grossesse daal la ko duggee ndax xale bi ku ko comprendre parfois mu def ay bêtises parfois da koy sax bëgg a lekkloo ay kaka wala bëgg mooy naan saw yi yëpp da ko koy def loo te ne ko xamul dëgg ko ko expliqué day mel ne film ci moom parce que rab bi ci boppam la ma wax moom ko ëmbee da ko dugg léegi nag man parfois nii ma dem di ko sangu ko ay garab bu xëy ak yooyu dañuy gis di yuuxu ba pare moom day bañ ma ni xale bi sama doom la dana ma juróo ko du sa doom ma ne ko sama doom la su ko defee muy yuuxu yuuxu yoo sa ne di jooy sama doom bi jigéen la elle a ren waaye ki man ki ma ëmbal dafa bañoon léegi nag sama yaay moom elle était avec moi mais pour delluwaatoon sama kër papa moo doon problème bi parce que sama papa bëggul woon loolu fii à sama nijaay laa fi nekkaloon ne moom it ay problème jabaram nekkuma woon këram par léegi nag sama kër tante bi ma nekkoon jël woon risque pour ma nekk fa tout le temps ak grossesse bi ci laa di fanaan ci mi loolu moo ma indi lii lépp waa bi day yeewu énervé di jooy mu ne affaire bi day bëgg sax di séy ak moom kenn xamul góor la jigéen la da def loo yoo xam ne mooy loolu te xale bi xamul loolu day yeewu di laajte ba pare affaire bi da rab bi danaan ko yow de yàlla nga gaaw rek gis say règle dafa sonn daal sonn na trop li gën a garaaw mooy affaire bi si boppam kiy wax ak man danaan man ba si suñu waa kër sama yaay sama sër da leen ne carrément dinaa leen um dinaa leen um ba doo leen yor loo leen ko fajee man loolu la ma wax te su ma la waxee yàlla seede na ne xaw ma kañ la xaalis gi jotegu sama loxo ndax affaire bi daf ñu um um carrément day taxaw di ñuy jotee ay soor nattu bu ko yàlla teg de mi ngi ci waaye hmm. xam nga luñ ci war a jànge hmm. man bokk sama sama xalaat bu gàtt hmm. mooy doom nu mu mën di mel ak njuumte bu ko mën a dal ci àdduna muy góor di jigéen amul benn raison bu war a tax ay param rejeté ko voilà que ay doomu aadama lañu yàlla ñu sàkk ñuy juum di sonn di bëgg di mer yooyu dafa bokk ci dundu doomu aadama yàlla ñu ko mooñaale hmm. donc ki nga jur mu def njuumte nga génne ko mu tumurànke hmm. xam nga wasin doom ju am rab moo moo gënoon tuuti ci li ko mënoon a dal hmm. la mooy wasin na doom bakkan la doomu aadama la yàllaa ko sàkk mais gis nga coono bi mu ko teg te lépp ñëpp lépp mu ngi tàmbalee ci génne bi ñu ko génne. Mhm. beneen bi ci topp mooy ñi nga xamante ne jii dañoo yore ëmb kenn génnewu la ñu nekk seen kër jëkkër wala seen kër yi mbokk nañu gàttal seen tànk fii Sénégal la. on a des réalités de. la ca tubaab yo tubaab ngay gis mu ëmb ba toll ci weeram nekk ci plage yi. Rihanna amagul doom. allo président. déet xaar Ndiaye xaaral Ndiaye. président de la République président si pro Colobane ak Sandaga résidence zone urbaine Fering si forum zone président de la République en plein résidence du président de la République nga xam mooy demeure historique situé dans le quartier de Gare Plateau capitale Sénégal construit en 1902 mu nekk la résidence officielle du gouverneur